5M TV Sénégal seen bu am solo abonné bul ci 5M TV Sénégal ndax ngay am ay vidéo yu am solo. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm ginnaaw ab jëllub maître El Hadj moom génn na dem sa TFM di fa amal ab mission aji Sarr ma ngay def ay live ñoom ñaar ñooñu nag ku nekk yaa ngay wax Sonko lu ñaaw lool. di wax Sonko kaddu yu ñaaw dem sax bay attaqué Cheikh Bara Ndiaye di ko wax ay kàddu yu ñaaw naan kii moom nekkul wax ko dëgg kii li muy wax lépp nekkul dëgg day ci télé bi rek di wax loo xam ne leeru ko li waral wax joojee nag moo di Cheikh Bara Ndiaye dafa yëkkati woon ay kàddu di wax ne yor na benn audio boo xam ne Adji Sarr maa ngi cay wax lu ñaaw ki nga xam ne moo di Alxaaji Diouf ak ki nga xam ne euh, moo di Mamour Diallo moom nag ginnaaw bi ko laajee loolu daal muy tontu na daal moom loolee nekkul dëgg kii li muy wax nekkul dëgg moom nag Cheikh Bara Ndiaye wax na daal audio bi daal su génnee mboolem koo xam ne da bokk ci complot bi daal di nga am gàcce te in incha allah dana ko génne ndax Adji Sarr moo dem ci ab sëriñam daal koy leeral lépp loo xam ne daan nga koy defloo Cheikh Bara Ndiaye nag joxe rendez di wax ne audio bi dina ko génne mboolem koo xam ne da ngaa ci mbir mi daal jàppal ne bis dina ñëw nga rus loolee daal Cheikh Bara Ndiaye moo ko doon xamle loolee nag ginnaaw bi nga xamee daal daan nañ ko laaj ki nga xam ne moo di maître Alhaaj Diouf foofee ci TFM muy tontu ne daal kii nekk na koo xam ne li muy wax lépp nekkul dëgg dem na sax bay sosal Sonko ci ay audio yoo xam ne daa génnoon ñuy wax ne Cheikh baa Ndiaye moo ci waxoon ne Sonko nangam ak nangam waaye daal loolee daa nekkul dëgg parce que la wax lépp daal amul lenn lu ko ci leer loolu daal la xamle moom mii di Alxaaji Diouf moom nag génn na audio boo xam ne dañu ko def ci Sonko daat koy montage taqale ko ci plateau bi di wax ne Sonko moo ko wax naan Sonko moo ne yor na almet dana taal dëkk bi loolee daal am montage la boo xam ne ñii nga xam ne daal ñoo di waa Benno ñoo ko def te loolee Sonko mi ngi ko doon wax ci Macky Sall ñoom nag ñaar koy jël daal di koy montage jàpp ne daal loolee suñ ko génnee daal mën nañoo am ay preuve Sonko di wax ne Sonko daal nekku ku baax waaye daal ki nga xam ne moo di Alxaaj Juuf daal ma ngay wéy di gën a attaqué Sonko di wéy di attaqué ñi nga xam ne ñoo ànd ak Sonko di attaqué ñi nga xam ne ñoo di opposition bi jamono ji nga xam ne daal ñi nga wax ne daal Sonko rek moom la Sénégal yi bëgg ñoom nag ñu ngay wéy di ko gën a bañ voilà kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen ci ànd beeg 5M TV ngeen wéy di abonné di partager vidéo yi jaa ngeen jëf ci topp gi ak safa gi ak namoo gi jaa ngeen jëf 5M TV Sénégal seen YouTube bu am solo abonné lu ci 5M TV Sénégal ndax ngay am ay vidéo yu am solo